relevé un défi de taille, l'organisation du baccalauréat cette année. J'espère que vous pouvez vous attaquer à d'autres défis. Vous savez, le nombre de scientifiques bacheliers est extrêmement faible dans ce pays. j'avais dans le temps suggéré que les séries de bac soient supprimées. Moi, j'ai eu, la chance de faire un bac scientifique, un bac S1. Et je me considérais comme étant le plus paresseux du lycée. Parce que ceux qui, à l'époque, faisaient le bac A, passaient tout leur temps à apprendre. Et nous, c'était la mathématique et la physique. Alors donc, faire comprendre aux enfants qu'un bac S1, un bac S2 ou un bac S3 est un bac insurmontable. je pense que vous, monsieur ministre, ce défi-là, vous le relever. Pour ce qui est du taux de bien, ce n'est Parce qu'en réalité, pour un pays comme le Sénégal, ailleurs, on a plus de 90%. Avoir le baccalauréat, ce n'est pas nécessairement aller à l'université, mais c'est d'avoir des connaissances. Avoir un diplôme, ce pas nécessairement avoir un emploi, mais c'est avoir des connaissances. Donc faisons en sorte que ces enfants puissent avoir leur bac et faire ce qu'ils veulent faire. Je sais que vous êtes en train de le faire, mais une forte introduction des nouvelles technologies et de l'anglais au niveau de notre système éducatif. Parce qu'en dehors de cette affaire, nous sommes des analphabètes. Vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, mais vous ne savez pas lire un document en anglais, vous n'êtes plus à la page. Merci. <laughs> en tout cas, l'anglais est une nouvelle technologie. On a parlé de votre budget, mais vous n'avez pas de budget en réalité. On aurait dû soustraire les charges de personnel de votre budget, mais vous allez vous rendre compte que vous n'avez que 80 millions, 80 Et, et, tout le monde demande des salles de classe, tout le monde vous demande de construire, de faire ci, de faire cela. Mais monsieur le ministre, vous n'avez que 80 millions, le reste, c'est Maintenant, pour revenir aux nouvelles technologies, il semblerait qu'une bonne partie des bacheliers devront être orientés euh, dans des filières d'informatique, etc. Mais attention, Euh, les filières d'informatique demandent une certaine abstraction. On ne va pas quand même orienter les étudiants pour faire de la bureautique euh, ou bien pour faire une petite programmation. Nous avons besoin d'abstraction, d'algorithmes, et là, c'est une formation scientifique qui permet de faire cela. Je ne pourrais pas terminer, monsieur le ministre, sans vous rappeler quand même le, le lycée de mon village, Tateguine. Hein? N'est-ce pas L'assiette foncière a déjà été acquise euh, maa ngi lay sant di la gërëm. ci liggéey bi nga def parce que ñun aussi il faut ñu wóolu suñu bopp gëm suñu bopp bu ma déggee ñu ne France deful lii Sénégal def na ko ñu ci yéemu mais dañu xamul suñu bopp ministre ba nekk France wala ba nekk Amérique yemul ministre bi ci yowu tànk aussi simple que ça waaw ko ci yowu tànk mais lu France deful Amérique defu ko ñu mel ni ñun munuñu ko moo tax dañuy jël suñu xale yi yow nga am benn bac bu baax ñu yóbbu la France boo fa demee doo sax tekki dara dangay am sa licence wala nga am sa kii nekk vigile war a nga doo ñëwaat te loolu dañuy perte xaalis bu ñuy jël di ko jox xale yi ñuy dem duñu parce que du ñu tekki dara foofu ah. da ngay am sa doctorat mais c'est à peine ngay lan lay jël pour nga jàngale ci lycée mais bien sûr c'est comme ça voilà je vous remercie monsieur le ministre Je vous remercie, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre du travail di nuyu directeur général du budget di nuyu le secrétaire général di ministère ak directeur cabinet directrice cabinet ak DAGE ak di nuyu madame gasama mooy ñi nga xam ñoom nga àndal ñëw ak ñi nga xamante ñoo ni seen ginnaaw yëpp fi may tàmbalee rek comme ni ma ko waxee woon ci commission bi ginnaaw buñ la dalalee jaa jëfal la ci li nga xamante ni mooy li ñuy paase te kenn ku nekk Sénégal bu nekk bay si waaram muy lu ñuy bokkut te mun ñu ko séddoo te kenn ku nekk tey am loo si jëf ba tax ñu àgg fi ñu àgg ba tax tey année blanche amul kon loolu il faut que ñu ndokkee la si jaajëfal la si jaajëfal si aussi sénégalais yi muy élèves yi muy parents d'élèves yi muy ñi nga xamante ni tey mooy enseignants yi ndax ñu ñëpp ñoo bokk xeex boobu noonu kon loolu am solo la ndax tey bu année blanche amoon yaakaar naa ñu perte lu ëpp bis bi ñuy wate kon il faut que tamit loolu ñu wax la ko monsieur le ministre li nga xamante ni moom laay wax rek ku ne xam na ni ministère bi da di ministère bu am solo ministère bi nag 2012 ba léegi du ma nekk di wax chiffres yi ndax day gudd waaye li nga xamante ni moom lañ leen jox muy ministère bi 4000 milliards la 4107 million 637 millions 581 mille 813 francs CFA mooy li ñu jox ministère éducation nationale. mais boo jëlee li nga xamante ni tey mooy dépense bi li ñu jox tey enseignants yi muy dépense personnelle y a 2077 milliards 989 917. 400 720 kon jàpp naa ni ministère bi daanaka boo jëlee 50 pour cent yëpp à 60 jëm na ci tey enseignants yi ak li nga xam mooy départ personnel li nga xamante ni moom laa lay mooy kon ministère bi waruñu ko laaj investissement bu bari ndax mënu ko 2021 bii ñuy wate tey jii rek bist bi mu ngi nekk 500 milliards 541 milliards 211 milliards. 701 304 francs fa mais 458 milliards francs fa moo la jëm ci enseignants yi mais loolu jàpp naa ni ci biir 500 milliards 458 milliards jëm ci enseignants yi yaakaar naa ne loolu ku ne yéen ñi fi nekk ministre mën na ko def waxul lu am mënu ko il faut que ñu waxante dëgg ah dépassement li nga xam mooy dépense investie par l'État ren si biir 500 milliards bi 22 milliards 303 631 606 francs mooy li nga xam ne mooy investissement programme tout le programme mais kooku lan la man ci biir 500 milliards mais il faut ministre ministre des ngeen génne milliards francs CFA def ko programme pour que ñu mën a seet fa bëgg-bëgg yi mais loolu mooy ne jaaru mais lii mënu ko aussi ndax milliards mën loo ko nga bëgg a table banc yëpp Sénégal def ko salle classe yi def ay lycée def ay loolu mënta am il faut ngeen wax ku ne xam na ni programme bu am solo mooy lu jëm ci daare moderne la 64 daare moderne pare na mais trente deux mooy privé 32 mooy public Mbàkke am na si 4 4 yi fu mu nekk mooy benn bi mi ngi nekk maanaam Yaañka benn bi mi ngi nekk maanaam fi ñuy wax euh, euh, Madina Touré beneen bi mi ngi nekk maanaam commune Mbàkke benn mi ngi nekk Daaru Tansiir mais monsieur le ministre daara moderne yooyu dañ ko war a ubbi avant avant fin décembre mais bari na loo xam ne dafa manqué la te àggagul kon bëgg naa aussi tamit ñu jàppale leen pour que ñu mën a àggale ndax avant programme bi jeex la 31 décembre pour ñu amaat beneen pour que daara moderne yëpp mën a pare rawatina fi nga xamante ni nag mooy Koungheul ak Kaffrine foofu moom daanaka daanaka daara moderne yi dañ koy doog a tàmbale rek te gisuñu sax ñi nga xamante ni ñoo nekk li nga xam mooy entrepreneur yi monsieur le ministre li nga xamante ni mooy éducation bu Mbàkke ku ne xam na ni soxla na ay lycée mais tey jii élèves yi jóge Touba yëpp di jàng bu dee cent quatre-vingt pour cent yëpp Touba la jóge dañuy dugg si ay oto mais amuñu ko amuñu paas man mii di wax ak yow maa fayaloon deux mois parallèle fii pour que ñu mën a dem jàngi mais nañ ñëpp def noonu jox naa leen cinq millions francs CFA EA pour que ñu mën a def ay appel ay ay masque ak ay sel mais na ñëpp def noonu pour jàppale état bi loolu mooy li nga xamante mooy li ëpp solo li nga xamante mu jëm ci affaire maanaam masque yi mais pourquoi éducation mun ñu ko si jox pour que ñu mën ko jox élèves yi comme que nee na masque yi mi ngi fi te soxla nañu ko ndax dañu gis benn table classe benn benn table banc boo xam ne te ñetti élèves ñoo fi toog masque yu doyul amuloo xaalis boobu noonu masque yaa ngi fi xaalis baa ngi fi na ko débloqué jox ko ministère éducation nationale je vous remercie jërëjëf. merci